asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyuwaat ñëpp encore une fois di ziaraat ñëpp di nuyu képp kuy suivre chaîne biir di lu xew TV tey waa lu xew TV ñoo leen ñëwalaat ci beneen vidéo donc toujours dañuy rester ci série bii di maîtresse d'un homme dañuy defaat benn retour ci vidéo bi ñu mujjee def gis nañ commentaire yépp macha allah. ñi ngi remercier ñëpp ñi nga xam te ne joxe nañ seen xalaat ñi ànd ak ñun ak ñi ñàkk ànd ak ñun ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal parce que dans la vie lépp waxtaan la te lii mooy démocratie ñi dañuy féete fii ñuy féete fii mais nangu leen ñëpp lu ñu wax sauf am na ñoo xam te ne bon franchement parce que ici quand on parle d'idée eux il passent tout leur temps à insulter bu nit ñi di waxtaan di génn ay xalaat ñoom foo leen fekk ñu ngi saaga xamuñu sax li dañuy lire vidéo bi tag saaga pare nañ ci te boo suivre seeni commentaire ak chaîne bu mën a dem vidéo bu mën a dem dañ fay saaga point barre donc genre yooyu noonu je pense que war nañ xoolaat seen bopp te xam ne ni ku jox cër say waajur doo nekk ci youtube bi di saaga parce que boo saagaa nit keneen ñëw fayu keneen fayu sa waajur nga saaga alors loolu de grave ñi ngi leen di ñaan ku ko mën a bàyyi nga bàyyi ko ñi nga xam te ne nag yàq moo leen tax a laa bon on n'y peut rien ñi nga xamante ne joxe nañ seen idée ànd ak ñun suñu gis-gis peut ak seen gis-gis moo dëppoo ñi nga xamante ni joxe nañ seen idée ànduñu ak ñun suñuy gis-gis ñoo bañ a dëppoo loolu day am mais nangul nañ kenn ku ne li nga wax suuf dafa am ñoo xamante ni peut-être que fi ñuy waxee ak fi ñu dégg bokkul. je l'avais bien dit c'est pas forcément que suñu avis mooy seen avis c'est pas forcément que ñun li ñuy gis loo ngeen di gis. donc kenn ku ne ak sa gis-gis mais ñun ñoo jël décision suñu gis-gis ñu partage ko ak nit ñi peut-être que am na suñu benn sœur boo xamante ni wala suñu benn frère boo xamante ni vidéo bi ñu def mën na ko jàngal dara loolu rek lañ ci jug en plus ñi wax que ne ñun dañuy critiquer je pense que digluwu leen suñu première vidéo ñi ngi ko defoon ci diggante Racky ak yaayam ñu tiire woon ci une leçon de vie félicité ci Marodi TV ku bëgg a xam li may wax demal nga seetaan vidéo bi ñu ko fa dégg vidéo bi ñu ngi ko titré série maîtresse d'un homme marié leçon une donc foofu noonu ay leçon de vie lañ fa joxe nu nu ne pas des hypocrites comme ni ko ñenn ñi waxee ci commentaire yi ñun buñ gisee lu baax dañ koy wax mais buñ gisee loo xam ne jàpp nañ ñu baaxul tamit dañ koy wax te dama def benn remarque la plupart ci ñi nga xamante ni si ñoo contre li ma doon wax ay jigéen lañ du ñëpp nag am na ci quelques góor mais jigéen ñee ci ëpp je parle de manière générale am na tamit jigéen ñu bëri ñoo xam te ne ànd nañ ci li may wax mais dama gis ñi contre bi ma xoolee ñu bëri seen tur yi ay turu jigéen la et pourtant yow sama sœur boobu noonu di contre li may wax di jàppale ñee li ñuy def loolu ñuy def yow tey bëggoo ëllëg sa doom di ko def xool leen keroog séquence bi nga xam te ni si Marème Cheikh daf ko dig seet si bi mu toogee di ko xaar à un moment donné mu tëdd xool leen foofu bi mu tëddee caméra bi loolu normalement daf ko waroon bàyyi parce que bi mu tëddee jupe bi mu sol benn part bi dafa wàcc et lool c'est pas joli à voir image bi mu ngi nii dama ko flouté parce que mënuma di xeex li nga xam te ni dama jàpp ni jaadul ba pare di ko wane mais ku ko bëgg a gis li may wax nii boo demee ci série bi duñ ko gis lii nii c'est pas joli à voir et yow mi nga xam te yaa ciy ànd ak moom bëggoo ëllëg sa doom di soloo nii di feeñ télé parce que solo lii sa biir kër ak solo lii muy feeñ télé c'est pas la même chose donc ñu bëri dañuy jaawale certes li nga xam te ne moo am ci dëkk bi moom la ñuy joué nangul nañ ko parce que boo dégloo vidéo wax nañ ko mais am na loo xam ne waroo ko génne télé parce que ça choc gis nga ki nga xam ne dafa sol lu ko neex toog biir këram kooku wanu ko des millions de personne alors que série bii nii non seulement su ngeen demee sur YouTube am na plus d'un million de vues mais imaginez ñaata nit ñoo ko seetaan télé ñaata doomu aadama ñoo toog télé di ko seetaan plus ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan ci YouTube bi loolu ay millions de personne la donc li nga xamte ne ay millions de personnes ñoo koy suivre bokkut ak li nga xam ni ne da nga ko sol toog sa biir kër ñun foofu la ñuy waxe ma Marème également bi muy wax ak xaritam bi. ba wax ko wax joo xamante ni si nii tegginewul ngeen baal ma ma jaar ci tuuti ndax nit ñi xam li may wax maa ngi ciy jégal bu baax nag bam naan ko sama lii maa ko moom ku ma neex laa koy jox loolu yéen bu pensez que yoon la tey am na benn xale bu ndaw buy toog di seetaan bu dee dafa bëgg Mariam fansam la xale boobu mën na jàpp ne loolu moo gën ëllëg moo koy defi am na ñu ni nañ yar sunu doom yi ba duñ seetaan télé ma leen di fàttali ni àdduna c'est pas parce que da nga gis sa yaay gis sa papa que ñëpp ñu ngi gis seen papa ak seen yaay am na ñoo xamante ni xamuñu seen papa ñii xamuñu seen yaay am na ñoo xam ne far yàlla xamuñu seen papa xamuñu seen yaay soit ñi ngi seen tante wala seen benn mbokk tey gis nañ fi ñoo xamante ni seeni waajur dañoo génn àdduna seen tante bi leen yor ci biir kër gi du leen toppatoo faalewu leen ñun bu ñuy wax da ngeen di tenir compte kooku parce kooku noonu seen séer la. kooku noonu tey wala bu dee góor tamit seen frère la bu ñuy wax dañuy xalaat ñooñ nga xam te ne amuñu tey ku leen éduqué amuñu ku leen teg ci yoon bu baax c'est pas parce que man am naa benn éducation bu baax que sama morom am na ko ñun bu ñuy wax waxuñu pour ñi nga xam ni am nañ ay parents yu leen di teg ci yoon mais dañuy wax de manière général loolu nag dina ci dugalaale ñi nga xam te ne amuñu ay parents yu leen teg ci yoon donc bu ñu yaakaar rek ñun conditions yi ñu nekk moom la ñëpp nekk. parfois dañuy sóoraale ñi nga xamante ne si nii nekkuñu ci condition yi ñu nekk donc loolu jar bàyyi xel la. ñii comparé nag série yi daw ci Novela bi ak série yi nga xamante ne Sénégal yi ñoom ñoo ko proposé je pense que là également comprendre leen fi ñu waxee xam nga ñun lu ñuy wax ci li nga xamante ne waa Marodi TV moom lañ ñu présenté te Marodi TV nekk loo xamante ni mu ngi biir Sénégal ñun foofu la ñuy waxee. bu ñu comparé ñaar yooyu day mel ni ñun dañoo jóg di roy di ci ñooñu. non non non bu nit ñu la am feenee moo gën a doy waar même bu dee moo gën a doy waar nekkul loo xam te ni mu ngi biir Sénégal ñun kay Sénégal la ñun ñoo taamu lu ñu présenter rek jóge ci àll bi ñu jël ko loolu je pense que beneen débat la beneen cas la mais ñun fii fi ñuy waxee mooy li nga xam te ni waa Marodi TV noonu ko présenter te nekk loo xam te ni mu ngi biir Sénégal moom la ñuy waxee. et je pense que dans l' ensemble loolu lañ fi souligné woon dañuy joxe suñu point de vue. mais nag comme ni ñu ko waxee woon rek suñu point de vue ak seen point de vue mën na bañ a bokk te man dama jàpp ne actrice wala acteur de manière générale du lépp lu luñ la jox nga war ko nangu jouer mën nga jouer mais avec la manière parce que li ngeen war a comprendre mooy tey am na yenn acte yoo xam te ne boo koy def ci benn série après mën na la topp sa vie nga jouer benn action ça pas dire que noonu nga mel mais ñi koy seetaan image bi ñuy am ci yow loolu la ñuy jàpp parce que ñooñu xamuñu la woon avant ngay jouer série bi nga commencé jouer bi ci lañ la xam donc ñoom li ngay wane ci série bi loolu lañ lay jàppe et que tey gis nañ fii acteurs yu bari yu joué benn affaire pare di ko regretter donc am na yoo xamante ni si ne da nga ci am sa la man nga jouer man nga wane li nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi te ngeen koy ñaawlu mais quand même avec la manière tey fii ku taxaw ni série bi amul dara lu vulgaire bon je pense que da ko wax rek juste parce que fan sa série bi nga mais ku wax dëgg te yàlla tax xam ni série bi bëri na lu vulgaire te baat yu vulgaire yooyu noonu bien vrai moo am ci biir kër yi mais li ma leen waxoon sànq la leen di waxaat li nga xam te ne ci biir kër gi lañ ko waxee bokkul ak li nga xam te ne dañ ko génne àdduna bi teg seen bët mun ñu leen comparer mun ñu leen yamale tey bu dee lu baax la mën nga ko wax bu mu fës mais bu dee lu bon la am na noo koy waxee nu mu gën a naayse que nga jaar ci ci digg bi parce que war ma dafa baax ñun foofu la ñuy waxee mais du pour critiquer pour critiquer rek. donc tey loolu moo nekkoon sunu vidéo doon def benn retour ci vidéo bi passé ak ci commentaire yi ñu jot a lire également tamit di lancer waale benn message bépp acteur bu nekk ci série yi di leen fàttali ne man ngeen nekk ay acteurs yu ñu ràññee ci biir réew mi te du ngeen joué yenn yi fii bëri na ay acteurs yu ñu fan trop nit ñi bëgg leen macha allah te nekk ñu du joué yenn yi ku ci mel ni Tafa bu idol man seetaan naa benn interview fu muy waxee que ni moom du nangoo joué yenn rôle yi donc nekk acteur rek taxul lu la jox nga war ko joué surtout yéen sunu sœurs yi yéen jigéen ñi parce que lu yàq deru jigéen dafa yomb donc li ñuy wax ni waxuñu ko parce que dañ soxor te condamné wuñ seeni personne parce que bon mënuñu juger koo xam te ni xamuñu ko mais li ngeen di joué ci série bi ñun loolu la ñuy wax donc encore une fois ñu ngi tuubaat di jégalu ñëpp liñ fi wax ki yëpp ko mu laal ñu ngi lay jégalu parce que dañuy partager suñu point de vue uniquement mais ci anam bi ñu jàpp ne moom la gën a rafete moom la ñuy waxee nii ñu ngi jégaluwaat ñëpp ñi nga xam te ne vidéo bi laal na leen